Euh, muy maanaam euh, bindaat euh, ñaari texte yu am solo si wàllum suuf ak wàllum dëkkuwaay muy code de l'urbanisme ak code de la construction code yi rappelé nañu ko léegi maanaam 2008 la ñu leen bindoon xam ngeen 2008 ba léegi moom fu mu toll nii yëf yu bëri changé na urgence yu bari na surtout comme nañu ko rappelé léegi si suñu ñaari discours dañu am projet bu mag a mag bu am solo bi nga xam ne président moo ko sumb muy 100000 logements yi 100000 euh, logements nag soo ko buggee def si si si juróomi at euh, si Sénégal fu mu toll faw ñu xoolaat procédures yi faw ñu xoolaat maanaam suuf si ni ñu ko mun daggate ba nga xam ne urbanisation bi euh, suñu demee ba dëkk du sooxee du ñu am ay difficultés parce que gis ngeen maanaam dëkk yu bees yëpp yi nga xam ne def nañu ko. Euh, à chaque fois suñu demee ba nek fofu muy euh, euh, disons plan Jaxaay ak et surtout plan Jaxaay gis ngeen quand même à chaque fois su nawet amee inondation yu fa am euh, légui ñu bëgg moy di à chaque fois que suñu bukkee am buggee am maanaam dëkkuwaay yu bees que ñu am plan d'urbanisation bi nga xamné en tout cas dinañu mun permettre ñu am dëkkuwaay yi nga xamné à chaque fois su nawet amé tamit nous euh, avons des difficultés. Euh, Yenen yi moy aussi mbir il faut que mu gaw or so xolé procédure ñu fi nek euh, pour liguey sans logement c'est 5 at moins de 20 000 logements par at il faut procéder ñu sopilen parce que à chaque fois si fekkene dossier def war am ñent ba Ces procédures ci procédure euh, c'est sûr que bi presque day jeex te tàmbaliwuñu dara or il faut que ñu dem rapidement si yooyu donc il faut ñu xool nan lañu ñu dématérialiser procédures yi nan nañu mun en tout cas raccourcir délai. yi ba nga xamné agent administration yi wax naa ko légui du urbanisme rek urbanisme le domaine cadastre mais surtout collectivité territoriale manam muy mairie aussi dañu euh, war a bokk si mbir mi ba nga xamné dal à chaque fois que suñu introduire ay dossiers euh, yef yi gëna a gaaw mais surtout mon mun respecter procédures yi nga xam ne aussi dañu ko lal